Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum wa Senegal Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk yàgg ya naa leen indil ay musa waaye xibaar yi ma mës indi fi ci chaîne Kéwoulo bii moo ci gën a tiis bi nga xam ne moo ma gën a soxal bi nga xam ne bëgg naa askanu Senegal yépp bàyyi ci xel mën cee indi seen dimbal te yàlla tax waxtu ji may wax ak yéen ab jigéen mu ngi jaaxle yor njabootam ca biir makkatal karama fi nga xam ne dañu ne mooy dëkku sangum sang yi mooy dëkk boo xam ne kenn ku ne ci sa dund yaakaar nga dem fa la fa dal nag du lu neex ndaw sii dafa yor njabootam ndaw sii dafa nekk ci situation irrégulière maanaam amul këyit naka noonu doom yi amuñu këyit ndaw si bokk na ci jigéen ñi nga xam ne bu ujaaj yi demee màkka ñoo fay nekk di leen jaay ay toggu senegaal wala di leen indil ay produits yu Sénégal di ko jaayante ak ñoom ndaw soosu du tudd turam du ma tudd it turu njabootam waaye li muy dund ci jamono ji lu méttee metti métti la ndax gannaaw bu mu fa nekkee ak njabootam dafa am benn ci ay doomam bi jigéen boo xam ne fukki at la am mom la doomu senegal ko xamne ne ab oustaz la bo xamne ne dañ nan sëriñ la bo xamne ne dañ nan keuru diine la bok mo daadi yegg ci xale bu ndaw bobu sakku ko sif ko ci ay yoni yoni yoni yon moy li wax viol sur mineur 2018 ya la commencé ba fin 2019 di ngeen mané lolu loolu naka la ak ca dëkk bu bërëb bu sedd boobu dafa fekk màkka dafa bindoo noo xam ne bu ñu ko tabaxee appartement yi dafa am partie yu jigéen ñi di nekk ak parti yu góor ñi di nekk entre sénégalais dañu fa dëkk ci immeuble boobu ndaw si bu xëyee bàyyi njabootam dem uti ji liggéey naka noonu la gis comme jamonoy confinement bi ñëpp dañu toog kenn liggéeyatul mu gën a nekk ak njabootam waaye mu seetlu ni kenn ci ay domum bu góor moom jubawul lu bari ak rakkam bu jigéen bi saa suñu laalee téléphone ñu xëccoo ay téléphone wala ay tablette mu naan ko da nga bon lool moo tax am jëkkër yaay ji loolu interpellé ko à plusieurs reprises mu laaj mag ji ne ko yow da nga bàyyi di wax kii nii du am jëkkër ndax kii sa la bés buy am jëkkër yow yaay ki koy maye mu ne ko déedéet ñuy continuer situation bu mel noonu bés mu déggaat ko mu naan ko soo ma joxulee téléphone bi ma fóot yi damay wax yaay li la diw di def diw boobu la muy def xale bi te yaay ji yëgu ko mag ji nee na ko mag ji mu wax leen ni ay 12 ans 13 ans la am ne ko soo ma joxul téléphone bi naa wax yaay li la diw di def naka noonu la yaay ji jëlee doomam bu jigéen wéet ak moom waxtaan ak moom ne ko yaay sama yaay sama turandóoru yaay la sama yaay laa la tuddee te da di jigéen yaay sama xarit ngir yàlla wax ma sa mag ji lim la naan la la diw def lan la nga wax ma ko ma saafara ko xale bu jigéen bi daal di jooy ba fàttali leen ni xale bu jigéen bi fukki at la am mu jooy ne ko yaay boo fi nekkul diw daf mooy siif diw daf ma def lii daf ma def lii daf ma def lii yaay ji taf ay noppam yuuxu ne musuta xalaat lu mel noonu mu jooy wóolu woote waa kër gi nga xam ne njaboot bu góor boobu xale bu góor boobu fa la nekk ustaas bi fa la nekk ñooñu ne ko nañu xool nuñ ko lijjante ci suuf nañ ko defee maslaha ndax waa dëkk bi bañ cee jot ndaw si def ay gëstoom kenn xamal ko ni waa ji sa doom yu tuumaal waa ji tëddee xale bi yàgg na ko def ndax mësoon na ko def senegal ab jànq buy liggéey seen kër ba jànq bi 14 la am daf ci muséwoon ëmb ñu yóbbu yëf ya police gars yi ndëpp ndëppal ko ba mu génn ci donc tey bu ñu ne moo def lii fii ci makkatal mukarrama mën nañu gën ni moom moo ko def waa ji waxtu bii may wax ak yéen jóge na Makka déplacé wu na tuuti ndaw si nekkal ci bàyyil jàppal bàyyil ak waa kër googu mu ni comme mënut def benn démarche parce que moom situation irrégulière la nekk te amul këyit mën nga sax yóbbu doomam hôpital parce que hôpitaux yi ay hôpitaux publics lañu il faut nga nek en situation régulière pour nga mëna def yeen démarche laka moy ci clinique yu ndaw yi ngay dem te di nga fay xaalisu bari te waxtu ji may wax ak yeen ndax si lu mu lek sax teunuko ndax makkar crise bu metti metti metti mo fa nek ba sénégalais yu bari gouvernement bu Macky Sall mu ngi préparer vol de rapatriement pour delo ci sénégalais yi nga xamné mënatuñu lan mo déssé ndaw si lu dul mu dem joyoko consulat bu sénégal ça fait deux semaines bi mu leen informé ça fait deux semaines pratiquement bi nga xam ne man entré naa en contact ak ay nit ñu nekk ci consulat ba mais ne ma bu ma ci feeñ consul ba xamal na ni ndaw si li mu bëgg a def dafa grave parce que benn sénégalais musta porter plainte contre benn sénégalais fii ci Makka mais li gën a grave mooy est-ce que xam na ni atte li muy wax nii bu fekkee ne waajee ko def est-ce que xam na ni atte gi rey la mom consul bi devoiram moy mu protéger xalé bu jigéen bi ak yayam mais devoiram yi tamit moy mu empêcher nu japp ab sénégalais de dag bopp bi malgré que sénégalais bobu xam ni ci dëkk bi mu défé ñaawteef bi atté bi dag bop la ndaw si xamal ko ni elle a besoin de justice nañu appliquer justice bi Wa consulat ba conseil ko mu ñibbi Sénégal mu dem déposer fa plainte mais li nga xamné moy problème bi moy ndaw si bu ñibbisee ñëw porter plainte Sénégal waa ji bu toogee pendant dix ans ñëwul Sénégal prescription day daal di taxaw am na dëkk yoo xam ne seeni loi prescription mooy bu app bi euh, weesee kenn dootu la mën a topp am na dëkk yoo xam ne ñoom dañu ne prescription ñoom mu ngi commencé ci dix ans après la majorité de l'enfant maanaam xale bi bu amee fukket ak juróom-ñett fukki at après fukki at ak ñettam donc ñu wara a ci ñaar fukki at ak juróom-ñett boo ko amee te porté plainte wala jàpp nu waa prescription daal daal di am am na ñoo xam sax nee nañu vingt ans après la majorité de l' enfant waaye situation bi ñu nekk tey mooy ndaw si bu porté wulee plainte foofu ca Makkatul Mukarrama bu ñëwee porté plainte ca Sénégal gouvernement Sénégal gendarmerie Sénégal police Sénégal justice police justice Sénégal amuñu benn pouvoir amuñu benn daraja mën émettre mandat d'arrêt international pour dem jëli waajoojoo ca Màkka amuñu benn pouvoir jàpp waajooju pour ñu indi ko Sénégal ñu ñëw ñu jugé ko donc waa ji bu toogee foofu lu mat fukkeet ak lu weesu bu ñu gisee Sénégal dara ko du ko ci fekk waxoon naa leen ci njëlbeen dara fekk ko ci li ñu ne moo ko defoon ca Sénégal maa ngi leen di wax en deuxième consul bi dafa bëgg mu ñibbi Sénégal mu dem déposer ci fa plainte parce que Sénégal puisque constitution Sénégal nangul peine de mort gis sénégalais appliquer la peine de mort malgré que sénégalais boobu def ab la ab la ñoo def ko ci dëkk bu ci dëkk yi donc bu fa

siif ko di ko tëddee ay yooni yooni yoon ba ndaw si nee ma baba euh, ndaw si ak ay mbokkam nee nañ ma Babacar da nga di góor moo tax ñu la wax yenn yi nga xam ne ñooy génn ci xale bi mais xale bi fu mu nekk am na luy génn ci moom may woote wëllu ba bëgg Sénégal yëpp def ko muy seen yëf consulat ak représentation sénégalaise yi nekk ca bitim réew dañoo war a taxaw jàppale doomu Sénégal yi mais waxtu bi may wax ak yéen ndaw si jóge na màkk mu ngi Jedda pour mu gën a mën a jege consulat ba bi ko consul bi recevoir benn yoon xamal ko ni bu sañoon mu dem ñibbi Sénégal dem defi ko lii bu mu ko fi def nangootuñu ko recevoir parce que li ci liñ ci bëgg mooy ñu daal di noppi coow li mu bàyyi coow li coow li sedd besoin de justice ak liñ ko def ak li ñu def doomam naka bàyyil yàlla ñu nag ay journaliste la ñu war informer askanu Sénégal ci lu garaaw li nga xam ne moo dal doomu Sénégal boobu tey jii nu mu mën a def pour mu dem defal boppam procédure judiciaire du yomb parce un amul kayit ñaar amul xaalis puisque hôpitaux publics yi duñ ko jël parce que amul kayit clinique privée yi ñoo ci des pour ñu mën koo defloo examen gynécologique ñu defal ko ay mais faj doomam mais alors avec këyit boobu mu mën dem dem déposer des plainte au niveau de l'Arabie Saoudite pour que loi bi appliqué wu ci kaw ki nga xamné mo def loola xalé bu ndaw bi loolu tax nak tay mo defal len vidéo bi danañu defaat yeneen vidéo suivant euh, rebondissement yi ci am mais li gën important moy dañuy protéger anonymat wu bi parce que xalé bi mu ngi am fukki at ci ren te ma fàttali bi mu amé huit ans la ko waa ji commencé tëddee yaay ji it protéger anonymat mais maa ngi ñaan jigéen yi maa Sénégal peuple sénégalais bi peuple de justice la ñu jóg jàppale xale bu ndaw bi nga xam ne ans la am te ñu ko ñu pratique bi consulat bii di consulat yi nga ne ak ambassade yi nga xam dañu taxaw Sénégal fépp ci biir màkka tey sénégalais yu bari lu méttee méttee méttee méttee méttee la ñu rawale nañu seen njaboot ñi nga xam ne ils sont pris au piège tey ñu ngi xool gouvernement pour ñu mën leen a rawale naka noonu laa leen waxee aide yi ngeen xam ne yónni woon nañ ko jànk yi yónni nañ ko doomu Sénégal yu néewu doole fële ca arab yi saoudite ara euh, ca euh, Koweït ak ci Liban naka noonu laa leen waxe kii di ambassadeur bi Abdoul Ahad Mbacké jël alal joo xam ne sénégalais lañ ko lañ ko lañ ko jagleel

bu gouvernement sénégalais jogul bu mariam fay sall mi nga xamne mo njaboté doomu sénégal yi jogul bu Macky Sall mi nga xamne moy bayu sénégalais yi jogul wax ci dara ma nga len di ñaan yeen doomu sénégal yi pour la première fois may ñaan dimbal ñu organiser wu ñu dimbali ndaw si ba mu xamne sénégal gogu mu bok ba tay amna ay nit yu valeur jigen bi bu tedde goudi du nelaw après bu julé fajar lay nelaw de temps en temps ku jigen ki commencé na ba am ay problème mu bopp ñaari yoon dox na ci mbeddu màkka mu daanu ba ñu koy récupérer xale yu ndaw yooyu ñooy woo ay nit pour ñu dimbali leen pour ñu gàddu seen yaay indi ko parce que gouvernement Sénégal parce que consulat Sénégal parce que ambassade du Sénégal ñoom ñoo bëgg métti bi mu amee naqar bi mu amee mu toog ci kawam li mooy vidéo bi nga xam ne moom laa ne woon dinaa leen ko defal tey di ñaan kenn ku ne nga seete ko sa bopp xëy bàyyi njaboot ginnaaw di daan doole di liggéey mu am ab ponkal boo xam ne dëkkandoo la ndeke fu mu tourné téye sa doom tëddee ko fi nga ko war a waxee ñu ne bu ko fa waxee parce que kii boo ko waxee kii nañu dagg bopp bi kon na nga bàyyi lépp teg ci sa tànk jërëjëf lii mooy jooy bi nga xam ne waa Kéwoulo ci sama baat indil naa leen kon baaxoon naa di leen jël invité ngeen wax ak ñoom mais kii man maa ko ne doo feeñ sa kanam du feeñ man mii maa lay jooyal sama xar jërëjëf maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen jàppale ñu te yàlla tax.